Il y a des gens, monsieur le maire de Yembel, ce discours. Vous avez un niveau. Quel que, quelle que soit ce position d'opposant, mais ni d'une seule Parce qu'à mon niveau, niveau il faut réfléchir. Et eh, mais malgré, on comprend que vous êtes candidat. Ça aussi, vous le connaissez. Nous savons que vous êtes candidat. Ça, nous savons que vous êtes candidat. Ça, il faut le comprendre mais l'histoire nous dira te ko assemblée nationale mané mi sénégalais ñi nga xamné motion de censure ba nga gouvernement bi démissionné malgré votre nañ 6400 et quelques milliards voté ci budget jël nañ ay cadeau ay même bourse de familiale bi ñuy koy génné un jox ñi nga dañoo nous ne loolu gouvernement bi assemblée nationale ñu koy daaneel tuuti ci loolu nous ñëw ñu wax leen encore ma dégg fi benn jigéen jël kàddu jigéen woon suñu liste interpellé bi mu premier ministre fii ñëw def déclaration politique générale un jeudi soir après le conseil des ministres bi ma ko seetsee nan la ko seetsee ak nan la ko seetsee won ak li ma ko seetsee woon doo ba tifi tay taxaw di woné sa njub ne ya gëna njub Sénégal li don jaar sama loxo may ñew di lako indi lolu njub la man mi sama loxo la jaar de man mi tay li taxone mu jaar sama loxo xam nga xam man duma daw res je prends mes responsabilités nañ ma ci wo fu ma woo ma pour wax ne ne dangaa jub di woone sa c'est trop tard Lolo dafa baax nit ñi xam ko c'est-à-dire que taxaw tu n'es plus dans une position d'être avec Macky Sall di woone man jub naa du il faut être honnête il faut être honnête Mané. dama leen di wax lenn dama leen di wax lenn rek li taxoon ma dem ci man xam naa moom xam na moom bëgg cuisiner rek man borom pexe la. pexe yi ma defoon ba cuisiner ko mom xamna man xamna n'ama interpeller nama interpeller subo ma interpellé ou c'est peut-être pas d'autre xam nga waxoon naa ko fii ci ben ministre degoto kenen tek ci kàddu li aussi mom la ko wax nama wo subo nama wo ginaaw subo et je suis prêt à répondre cette convocation ma la wax loolu mané Amadou Ba monsieur le premier ministre fi inshallah ci assemblée nationale cette motion là